jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan euh, ci Senejet seen émission bi nga xam ne mooy euh, grand public ñuy am mbégte di ci dalal ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllug euh, politique. tey nag ñu am mbégte bu yaatu di dalal Babacar Seye muy tête de liste coalition les serviteurs ci département de Mbacké nekk tamit président mouvement bii di bëgg Sénégal tey moom lañ fas yéene waxtaanal ngir nit ñi gën a mën a xam kan mooy Babacar Seye waaye daañu waxtaan ci Fall jiite ko au niveau national dinañ ñëw aussi ci élection yi nga xam ne ni ayu bés rek moom moo des ñu daal di ci yegg Babacar salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah Seydina Aliou ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet yi nga xamante ne ñoom ñooy topp euh, site bi di Senejet di rafetlu seen liggéey ci département de Mbacké fas yéene ànd ak yéen waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy activité politique yi ñuy def. waaw comme niñ ko waxee rek ci introduction bi doon na baax lool nit ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu gën a mën a xam Babacar Seye. waaw euh, Babacar Seye euh, su ma ko doon xamle ci lu gàtt rek nit la boo xam ne mu ngi juddoo fii ci Bawol doon li ñuy wax Bawol Bawol euh, nekk aussi tamit nitu daara dem yóbbuwoon ñu daara ñu jàng fa alxuraan ba ba mokkal yàlla def nañu mokkal alxuraan def nañu fukki at ci daara. Euh, jàngal lañ ko aussi ay nit bañ mokkal alxuraan bind nañ kaamil aussi juróom-ñaari yoon donc euh, noon naa ne nitu daar lañ loolu te loolu la ñuy woote woo comme identité comme suñu comme ni ñu mën a xàmmee teewul nag biñ paree ci loolu aussi jaar nañ ci ay ay yëngu lu mel ne ak commerce euh, jàngale nañ alxuraan ci daara waaye jamono jooju yëpp dañ doon gësu ci wàllu xam-xam di jàngal suñu bopp rawatina français ak yeneen làkk yi lu ci mel ne anglais yu mel noonu yëpp dañ ko doon jàngal bopp

yàlla def aussi tamit ñu doon ñoo xamante ne dañoo am passion li ñuy wax euh, xemmemteef ci li ñuy wax informatique yàlla def ñu gëstu ci def ci ay mbir yu bari doon tamit koo xamante ne ku bëgg langue la moo tax ci lañ gëstu ci langue yi lu ci mel ne anglais français espagnol arabe chinois euh, ak bi nga xamante ne ñu ngi koy ñu moom lañ nàmp doon tamit koo xamante ne ku bëgg gëstu la rawatina ci li nga xamante ne moom mooy euh, relation yi am ci réew yi ak seen taarix yi doon tamit nit ku koo xamante ne dafa gëm après dafa bëgg der bu ñuul après nit koo xam ne dafa fier dafa am fierté ci Sénégal nekk gi mu nekk Sénégal loolu moo tax mouvement bi ñu jiite ñu tudd ko bëgg senegal ci loolu la ñuy wootee ci loolu ci la ñuy xëy ci la ñuy dox euh, fas yéene li nga xamante ne moom la ñu am te amul leneen lu moom muy Sénégal ñu fexe mu doon vraiment référence ci wàll ci domaine yëpp donc daal ci tenk loolu mën nañ ne lool lool loolu euh, kooku baaba Babacar Seye doon aussi koo xam ne doomu dëkk bi la doon surtout euh, sëñ Mor Abdou Seye boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko seexaloon sëñ Mor Abdou mi nekk kër mi nekk kër Mor Abdou foofu lañ doon jàng alxuraan sax kër Mor Abdou Laay Seye bi nekk wetu Louga euh, sëñ Mor sëñ Mor Abdou Seye mi sëñ Tuubaa tudde woon Lamp Njàmbur doon tamit koo xamante ne surtout suñu Cheikh Say Eliman la nekkoon fii euh, Daaru Xudóos nekkoon Eliman Daaru Xudóos lu yàgg ba dem ba dem wàcce liggéey jàngal ñu bëri ci njabootu sëñ bi jàngal ñu bëri aussi tamit ci ñi nga xamante ne moom mooy euh, borom xam-xam yi nekk ci dëkk bi euh, ñun aussi tamit doom kenn kenn ci ñi mu doon jàngal ñu di ko wax suñu as jaxate doomam mooñ jàngal xam-xam

nga xam ne suñ borom dimbal nu ñun laataa suñu suñu jàng di pare sax suñu borom mi ngi doon suturaal ñuy am ñuy am teranga yuñ mën a suturloo ñu nag suñu jaboot biñ fa jógee aussi tamit dem Dakar ainsi nekk fa di liggéey gën a yaatal entreprise bi créé tegaat yeneen ñaari entreprise lépp ngir rek doon koo xamante ne day fas yéene du du du du dépendre ci kenn te it fas yéene it maanaam euh, loolu noonu mu fexe ba

su ma déggee présentation bi damay am mbégte lool euh, ci présentation bu nu mel parce que suma la déggee yow autodidacte nga li ñuy wax euh, mu mel ne école française euh, jaaroo ci te it ngay kon exemple ci ndaw ñu loo xam ne nit ki lépp lu mu gëm te gëstu ci mën naa nekk te it yow kon bokk ñi nga xam ne ni dañoo def politique ngir am am xëy yaakaar politique boobu ngir mu mën leen jox liggéey kon yow da nga li ñu naan partir de rien pour devenir quelqu'un waaw ñun moom euh, politique biñ ciy dugg suñu borom dimbal nañu fekk na ñuy suturlu ba fi ne nii bañ ci nekkee ba léegi lépp lu ñu ciy def su suñu poste bopp la ñu làmm ngi def ko ci mosu fifteen mosuñ koo jot loo xamante ne politique moo ñu ko may ñun politique daf ñuy jiral waaye joxuñu kon bokkuñ ci ñi nga xamante ne dañuy def politique ngir mën a am lu ñu suturloo ñun yàlla dañoo defal ñu am lu ñu suturloo pare soo ko dugg ci politique. ñaareel bi mooy politique ñun dañ cee dugg ak gëm euh, li ñu ci dugal mooy man damaa toog xool Sénégal xool di xool yenn réew yi comme ni ma la ko waxee ci bi may bi may présenté wu nee la dañuy gëstu ci réew yi yi nekk ci àdduna bi. daanaka yàlla dimbal nañu réew yi ci bëree bëri bëri seen taarix xaw nañ ci am nañ am na luñ ci xam ak seen jaar-jaar. xool réew yooyu noonu fi ñu jugee ni ñu def ba développé te ñun Sénégal ba léegi ñun dafa mel ni nit ñi dañuy dem ñun ñuy dellu ginnaaw loolu bokk ci li fudd suñu xol ak fierte bi nga xam ne am nañ ko ci Sénégal loolu tax ñu ne ñun daal mënatuñ toog faaw ñu engagé wu fexe bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy indi benn révolution Sénégal révolution boo xamante ne dañuy as Sénégal yi dañuy yeewu loolu sax mi ngi tàmbali am waaye mu gën a am doole ñu fexe maanaam vraiment jug nag dox te xam ne ñun ba léegi jóoguñ am réew yëpp ñu ngi dem waaye ñun ñun yeewooguñ sax léegi nag loolu noonu

te 10 000 francs yoonoon sama waajur wu jigéen moom ma ko yónnee woon ma jël ko defar ci ay ay affiche yi ma doon euh, distribuer ci étudiants yi ci loolu lañ tàmbalee kon euh, mën nañ mën nañ ne yàlla dimbale nañ alhamdulilah dugguñ ci dugguñ ci ngiram la entreprise bi Globe One la tudd euh, entreprise bi biñ koy tàmbalee ñoo nekkoon ci université bi gis ne étudiants yi dañoon am problème information jamono jooju ay 2012 la woon 2013 ni internet mel léegi melu melu woon noonu bu njëkk daanaka ñun man sama bopp laa ko jël dañu daan toog université bi ñu ne ñun Euh, war nañu mën a am lu ñu dimbale ñuy am information yi ci laa dem créer benn système ba logiciel boo xam ne dafay envoyé nit ñi euh, message boo ci boo ci boo ci abonné wu bu heure bi rek da lay envoyé message daal di jël journal l'observateur tënkal la ko yónnee la ko ci message nga xam li xew ak tamit restaurant yi nekk ci université bi yëpp seen menu yi mu yónnee la ko ndax étudiant tamit loolu dañ ko doon bëgg a xam donc ak bépp information bu am lu xew rek automatiquement étudiant bi day jot message euh, ba ci làqu làqu benn xalifa bu amoon université bi yëpp ñun ñoo ñun ñoo leen ko yëgal dañoo jékki-jékki rek seen téléphone di sonné tak tak tak ñu xool dégg na xalifa sàngam dafa wàcc wàcc wàcc liggéey yu mel noonu lañ doon def université léegi nag étudiants yi dañ doon fay par weer ci système boobu noonu ci yàlla ci la ñu dimbalee ñu am teranga euh, ñu am ci tuuti xewal moom la jël nag di ci continuer di ci continuer ba tey ñu nekk fi nekk nii. Euh, muy euh, lu am solo léegi nag dañuy dugg ci li nga xam ne mooy politique bi nga xam ne yaa ngi koy def ñu gisit nga choisir coalition bi nga xam ne moom mooy les serviteurs ànd ko Pape Djibril Fall ndax mën nga ñu expliquer lu tax choix boobu la. waaw les serviteurs choix bi d'abord man ci ñi njëkk ànd ak Pape Djibril ci lu jum ci wàllum politique ci lañ bokk ndax lu jutu politique dañ dañoo xamante woon daan toog di waxtaan euh, euh, lu bari am na benn émission bu mu doon def sax euh, Sud FM benn jour doon ci wax doon wax naan sama benn xarit bu tudd Babacar Seye boobu ñun ñi la doon waxal te boobu duggagul sax ci politique. kon man moom yàgg nañu xamante laata politique di am bi ñu waree dugg ci lii bi ñu waxtaanee vraiment ma gis ne Pape Djibril man dama ko xam yàgg nekk ak moom bokk ak moom yend ak ma gis ne kii doy na ma ma am ci yaakaar. ma na naa ak mom ñu and liguey vraiment am projet nak de société pour le Sénégal li moma duggal ci coalition les serviteurs. Mm-hmm. Uh-huh. voilà nga dugg ci tamit euh, ñu ñëw ci élection législative euh, ñu def la tête de liste ci département bu Mbacké nga commencé dérouler campagne bi ak yu mel bi nga ci duggee euh, ndax li nga doon xaar gis nga ko wala jàppoon nga ne dal terrain bi ñu lay démé waaw campagne mom biñ ci duggé sante lañ def alhamdoulillah rabbil alamin ndax.

dem malgré li ñu am ko si néew ñu dem ak sénégalais di waxtaan ak ñoom joxe wuñ xaalis joxe wuñ joxe wuñ 15 ba ci démb rassemblement bi ñu amoon Mbàkke 15 bu gën a ndaw fayuñ ko nit à part peut-être lu ñu luyee bâche ak yu mel noonu bu weesoo loolu defuñ benn dépense te nit ñi nga gis nit ñu wuyoo ak nit ñu joxe bopp loolu dafa ma gën a yokk courage gën ma yokk confiance que ne Sénégal gii buñ jaayee nit ñi projet mën nañ ko defar kon foofu la loolu loolu mooy euh, bilan vraiment bi ñu ñu def ci campagne bi. Euh, ngeen am tamit ñaari mën naa citer ñaari coalition rek yoo xam ne ñoom ñoo gën a fees ci campagne bi muy coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne Mimi Touré moom mooy jiite seen liste ngeen amit coalition bi nga xam ne nii moom mooy euh, Wallu ak Yewwi Askan Wi. donte sax Ousmane sonk bokkut ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy euh, list bi ñoom waaye gis nañ ñu am doole lool ci département bi ñaari coalition yooyu moom yow naka ngeen di dundee ak ñoom ndax jàpp ngeen ne mën ngeen euh, def dara ci diggante boobu. waa xam nga élection moom dafa doon loo xamante ne kenn mënul wax lan mooy xew tant résultat génnul ndax yàgg nañoo def chaque année bu élection amee sondage yi dañuy ñëw

nañ bàyyi ba 31 juillet incha allah ñu xool lan la urne yi di wax. Mm-hmm. bon euh, campagne bi ci la lépp di euh, presque lu bëri ci lay leeree ñu gis yenn sondage yeeg yu ni mel maa ngi sax ñu koy commencé partagé mais tamit bu ñu xoolee ci côté moyen benn bokk yaakaar daf ko am ba mu doy bu ñu xoolee tamit ci bëgg nit ñi bëgg gi nga xam ne bëgg nañ ko Ousmane Sonko donte euh, Pape Djibril Fall booy xool serviteur tamit da ngay xam ne ñoom it gars yi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax mais yow tey ndax gis nga ne kat ñaari coalition yii moom tiit luñ Babacar Seye mi nga xam ne moo nekk ci département bi ñaari coalition yooyu ñun ñoo leen tiital les serviteurs. Ah. waaw parce xam nga tax ñoom ñoo fi nekk ñun ñu war leen a challenger comme tiit gi ci ñoom lay jógee mais pas ci ñun ñun nit doo ñëw fekk nit mu taxaw nga ñëw ne dama lay song nga daanu yow tiit. parce bu fekkoon da nga tiit doo am fitu song ko ñun ñun buñ tiitoon duñu am fitu song Yewwi Askan Wi duñu am fitu song benn boo ko yaakaar fekk leen fi ñu nekk fi ay at am ay moyens am lepp ñew ne leen hee ñu ne ah ñu li ngeen yor lañ bëgg te nañ koy fas yéene jël kon tit la peur ci camp ñooñu la nek mais pas ci ñun. ñom ñoo ñuy xool gis ñun jeune yi li ñu dégagé li ñu dégagé ci charisme li ñu dégagé ci xam-xam li ñu dégagé ci mobilisation li ñu dégagé aussi ci discours. ak li ñuy jaay sénégalais ñu xam ne ñi ni vraiment euh, bu bu ci kanamee tout bu len sénégalais bàyyee bàyyee xel man nañ ñoo sonal donc tit mom ñom nañ nañ leen ko bàyyee ñom mm-hmm. wa ñom ñoy tit waaye ñun mom

mais quoi qu'il en soit lu mën xew ñun gañe nañ ba paré ndax tax ñu gañe ba paré moy coalition bo xamantene ne dafa ñëw jàll parrainage mhm. fekk fi ay ponkal yu bari yoo xamantene ne am nañ mooy am nañ lépp ñu ñu ñu échoué ñun ñëw jall deuxièmement ñu doon coalition bo xamantene amuñ benn moyen jàkkaarloo gaay di dem ak ñom ci terrain ñun suba bu ngon ci terrain lañu def bi mhm. convaincre nit ñi troisièmement bi ñu doon communication ñu doon euh, euh, coalition bo xamantene amuñ benn moyen de communication bu am doole amuñ média amuñ dara te pourtant ñi ngi continuer nit ñi di ñu déglu donc tout ça buñ ko boolee ñun jàpp nañ am nañ am nañ victoire pare quel que soit l'issue de l'issue de, des journaux ñun am nañ am nañ victoire pare mhm. hmm. euh, tëddalist yi fi nekk ndax jot nga leen a xam boo leen xamee boo leen doon comparer ak Babacar Sey yow boo tegoon ci balance lan nga gis. ah xam nga ku ràcc jëmale sa kanam faaw mu faaw mu dëll. Mhm. te ndab lii su ma doon ràcc sama sama sama bopp sama kanam laa jëmale. Mhm. kon mënumaa wax ci ñooñu di leen comparer ak Babacar loolu peut être ñeneen ñoo ko defal wax yéen journalistes yi. waaye li ma xam daal ba xam ko mooy man ci lima ci li xam pour le moment man maay le seul la seule tête de liste ci département bi bu voté débat public. ku ñemee na ñëw suba ñu dem débat public suba euh, euh, vendredi bi yéen médias yi ngeen organiser ko. bu boobaa yéen bu ngeen paree di ngeen xam candidat yi nekk fii kan kenn ku nekk la muy posé. après bu boobaa yéen di ngeen mën mais man mënu ma jugé sama bopp ñoom mënu ma leen a jugé aussi ay ay candidat lañ yu ma respecté jox naa leen parce que samay mag lañ candidat yi nekk ci ci ci département bi match maa ci gën a nekk jeune ci li xam mmh. donc kon ñoom ñëpp respecté naa leen man mangi lancer un appel à travers Sénéjet mmh. débat politique Sénégal niveau débat dañ ko wara a nañu am fitu dajale mboolem képp ko xamante ne da nga bëgg askan wi dénk la da nga bëgg teewal askan wi da nga war a ñeme génn taxaw débat public boo xam ne ci xam-xam lay tege. Mm-hmm. Euh, tey boo doon jaay askan wi maanaam euh, mun naa wax sa tëddal euh, seen njiit muy Pape Djibril Fall wala boog Babacar Seye su bëggoon tey askan wi fal ko lan nga mën a wax askan wi ci programme wala boog ni ngi leen fas yéenee teewal ci assemblée nationale maa ngi dégg toujours nag ngay wax daara daara mu mel ne lu la ñor la. waaw euh, sa question bi ñaari xaaj la bi si njëkk mooy Pape Pape Djibril bi si topp mhm. bu dee Pape Djibril moom yaakaar naa ne xam nañ ko pare. mu mel ni tey jii rek ma ñëwoon di leen jaay iPhone naan leen dama bëgg ngeen xam ne iPhone téléphone bu baax la téléphone bu nangam la moom yàpp naa répétition la sénégalais yi gën a xam ne ñoo gën a xam kan mooy Pape Djibril Fall donc jaay leen ko mën euh, répétition lay doon mhm. bu dee ñun tamit li nga xamante ne jàpp a njëkk waxal balaa ngay wax la national mhm. base sama base li may wax mooy ñun dafa am lu ñuy fas yéene défendre muy le projet dooleel daara ak yeneen projet yu bëri yoo xam ne bëgg nañ ko défendre waaye képp kuy def kuy kuy représenté benn gox da ngay xool li nga xamante ne bokk na ci li leen gën a so soxal nga taxaw taxawal leen ci cent pour cent wala mille pour cent sax parce que daara dafa nekk benn mbir mu fi nekk moo xamante ne depuis 1960 ba léegi man def naa ci ay gëstu yu bari te it doon aussi nit koo xam xamante ni ku jaar ci daara def ci fukki at comme ni mu la ko waxee. Mhm. yàgg jàngale ay nit yàgg nekkoon daara yor daara di xam xam ci lu bari. waaye li ma la mën a wax ci li ma ci xam lépp li ko commencé 1960 ba 2022 tey jii muy 62 euh, euh, ans. Mhm. li ma xam ba xam ko mooy daara dañ ko négliger soofantal ko te loolu erreur la erreur te injustice la aussi. Mhm. maanaam ñàkk yemale la ndax. bépp sénégalais boo xamante ne da ngaa nekk sénégalais juddu am 6 ans wala 5 ans wala lu mën a doon da nga am droit boo xam ne état du Sénégal daf la ko amel muy droit à l'éducation ci constitution Sénégal Sénégal dafa bokk ci convention des des droits de l'enfant bi nga xamante ne le le 20 novembre 1989 lañ ko ratifié Sénégal da ko dugal ci constitution wax ne man dama cee adhéré mmh. te convention boobu noonu moom moo jël droit de l'enfant sacré ko. nekk loo xamante ne état yëpp dañ ko war a amal euh, te droit de l' enfant noonu droit de l' éducation mooy li ci ëpp solo xale bi da nga ko war a jàngal. léegi nag yow en tant que état droit à l' mooy xale bi nga fexe ba moom mu jàng waaye système bi mu jàngee ay waajuram ñoo koy tànn ñoom ñoo tànn ne man école bii laa bëgg mu jàng fa. wala man système bii laa bëgg mu jàng fa yow état nag bu boobaa li sa warteef mooy nga ne ko ah yow ko nii nga bëgg a sa doom xaaral ma accompagner la ba li nga bëgg nga ko mënoo ne kat ah man système bi rek laay laay taxaw beneen système système bi dama koy négliger par dama koy multiplier par zéro du ma ko du ma ko jàppale. boo waxee ñu naan la am na ay ay jéego yu état def ci daara yi waaye kat maanaam amul benn résultat bu concret boo xam ne man nañ ko wax. man mi di waxee nekk naa ci daara 10 ans ndox sax mosuma ko naan boo xam te ne ci état la jógee big sax état mosuma ko jëndal te pourtant samay parents ay sénégalais lañ di fay impôt. man may sénégalais juddoo ci réew mi lan moo tax man sama droit boobu noonu ba ma nekk bi ma amee 6 ans ba tey jii ma am âge ma am mosuñ fayuñ ma ko ci yoon sax damaa waroon taxaw réclamer samay droit ne état du Sénégal lañ ma ko fay parce que tabaxu luñ ma école fay luñ ma professeur def luñ ma dara te loolu c'est un droit boo xam man maa maa ko man maa ko moom mm-hmm. donc nag ñun li ñuy kaasal daara mooy dañu bëgg Il ñetti a ponk la euh, ci loi bobu non ñu bëgg a jëm ko daara si nous nañu am système de reconnaissance bu ñu défal école privée yi képp ku am daara ñu saytu bala nga ubbi daara ñu ko nekk ba xam mat na obligatoire mm-hmm. comme nit ñi ci école privée yi di vérifier ñu dem ci école dem ci daay di vérifier bu bu deuxièmement ñu mois comme ni ñuy élèves maîtres yi dañ leen Euh, formé leen 6 mois ngir ñu après ñu mën a dem jàngale léegi loolu war nañ ko mën a defal suñu daara bi jàngal ko lan mooy pédagogie nan ngay nan ngay dugale xam-xam ci bopp nit ndax ñu ci bare bare duñ leen duñ duñu leen jàngal ñuy jàngalee dañuy def ne dóor rek mooy jàngale xale bi boo ko jàng boo ne ko demal jàng mu taxaw jàng mokkul bu ñëwee da nga koy dóor mais dóor fan lañ bind ne dóor boo ko defee day tax xel nit ki xelam ubbeeku Sëriñ Saliou Mbacke mii référence mooy référence ci daara daaram kenn daaw fa dóor loolu nag ki kiy dóoree parce que dañ ko jàngalut pédagogie jàngal ko lan mooy xel ban moment lay am concentration ban moment la xale bi di di am déconcentration ban moment lay soxla reposé wu ban moment nan la mën def ba ba doon kuy kuy gëna gorgol def effort bopam. nan nga koy motiver ba mom moy jangal bopam. loolu lepp dañu koy jangal ci pédagogie ñu former la ci ba nga xamante ne boo paree dangay ngay am li nga xamante ne moom mooy diplôme buy wane ne yow mii mën ngaa jàngale aussi ñu jàngal leen programme primaire bii ñu jël ko defal leen ko ci làkk bi ñu dégg ñoom bindal leen ko nga xamante ne li ñuy wax les notions de base mooy ci wàllum géographie ci wàllum science euh, SVT ci wàllum jàngal ko seen daara parce que loolu nit ki làkk bi mu nàmp bokk ko ci jàngalee lu mat un sax moom programme primaire bi yëpp mën nga koo jàngal bu paree bu ñëw ci daara ji mu koy programme boobu mu koy jàngalal xale bi en même temps xale bi di jàngale alxuraan sa àjjuma wala alarba bi nga xamne xale en général duñ jàng mu leen di jàngal xam-xam bobu nga xamne xale bi su jàng ci dara dara ba mokal soné ko won lan moy traite négrière mu wax lako ndax jàngal lañ ko ko soné ko lan moy lan mo constituer al kawno moy le monde ki l'univers mën la ko wax lan moy l'organisme moy jëmmi doomu aadama man la wax ne le xol bi li moy mooy rôle am res wi li lii la lii lay def ci yaram bi rein yi li lañ def ci yaram bi nga xamante xalé bi mom su génnee école rek ben at lay jàng français pour mu léegi dég lak bi ndax suñu suñu école yi français lañu jangalé jàngalee ba léegi loolu dinañ ñew mm-hmm. waye comme france lañu jangalé xalé bi bu amé 1 an ñu jàngal ko français ba mu mën a français jeex na day dem 6e 1 an lay def def sixième mm-hmm. su defee xale bi du tardé 3e point bi moy ñu fexé créé ben système de bourse pour xalé bi chaque xalé bu ne ci dara dara bo xamné reconnaître nañ dara bi reconnaître nañ seen dara bi chaque mois état du Sénégal verse le 10000 francs bourse dix mille francs boobu noonu sa droit la boo xam ne yaa ko moom ndax état da laa waroon tabaxal école waroon laa fayal professeur comme deful loolu nag mu yónnee la dix mille francs bourse léegi dix mille francs boobu noonu imaginal daara boo xamante ne dafa am trente élèves trente dongo léegi dongo bu nekk bu amee euh, bourse dix mille francs loolu trois cent mille francs trois cent mille francs mën a dundal daara ji kenn du yelwaan daara ji du nekk ci ay ay ay ay tabax yoo xam ne tey rek dégg nga Medina benn dal boo xam ne dafa daanu bañ ne la ñaari ñaari ñaari ñaari xale dee nañ fi ñoo xam ci daar lañ nekkoon. Mm-hmm. parce que lu ci ëpp daar yu ci bëri bëri dañ leen di abal kër. xam ñu fa ay xale yu bare ba yoo xam ne ñaari xale yoo xam ne kan moo la wax ne la kenn mm-hmm. ñu ñu seetaan tout le temps ci daara yi muy am ay ay ay lakk ba xale dee ci yaa ngi dégg ñu njëkkoon am Medina at yële ci ginnaaw loolu nag loolu lépp négligence la te ñooñu ay citoyen lañ mm-hmm. te nit ki doona ko yow nii ngay jàng rek fa la force sinon bu loolu du ma la toppatoo bu boobaa da ngay violer ay droit am Mm-hmm. mu nekk euh, lu am solo di ko déglu sa wax dëgg yàlla mbégte la te it lu ñu war a bàyyi xel la ndax lu am solo la lool lool lool loo xamante si nii gis naa ne njariñ kese moom moo ci nekk waaye ñu jeexal a yow émission te waxuñoo ak yow ci li nga xam ne mooy euh, affaire comme ni nga ko waxee léegi traite négrière suñu maam yi ni ñu doon jëflanteeg tubaab yi ne mu mel ne lu la ñor la lu la yitteel la tout le temps booy wax dañuy gis da nga koy waxaale loolu moom lan nga si mun baaxee askan wi. Euh, damay wax que ne euh, damay tout le temps damay développé te it dama gëm li ñuy wax la fierté nationale. gis nga un peuple aw askan mënuñoo développé tant que ñoom seen jëm bopp xamuñu seen bopp ba fi am fierté seen bopp. gis nga tey boo jëlee euh, ban réew laa jël boo xamante ne jamono ji mi ngi dox dox bu bëree bëree bëri muy turki laa jël exemple rek. gis nga un turc boo boo ñëwee dëkkam langue bi mu nàmp lay jàngee taarixu turc lañ koy jàngal. jàngal ko ay maamam jàngal ko empire ottoman jàngal ko lu bare bare bare mu xam ko ci ci mbiram kooku day am fierté ci doon gi mu doon turc du du am complexe ci kenn ñun dañu war a delloowaat fierté bi nga xamante ne moom lañ moom lañ amoon moom lañ amoon suñu ndax ñun suñu maam yi ñëwuñu woon kenn mais depuis que tuba kii ñëw fi tubaab bi ñëw fi euh, dugg lañu ci ay traite négrière coloniser ñu mentalement économiquement loolu moo ñu indil retard bi ñu am tey ci ñun nag ñu bëgg vraiment sénégalais yi fierté boobu noonu mu judduwaat ci ñun ba xamante bu ñu am complexe ci kenn bu ñu am complexe ci fenn léeg-léeg gis koo xamante ne da ngay dégg ñoon yii sawaay kii ak xam-xam kii dafa dégg saa ak a dégg tubaab yi muy làkk mais loolu la français ab ab làkk kese la boo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir wax ak nit gënul gënul olof gënul pulaar gënul séeréer gënul arab gënul anglais gënul benn làkk anglais aw làkk dong la gënul benn làkk euh, euh, arab aw làkk dong la gënul benn làkk liñ gëm mooy wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi loolu alquran moo ko wax te loolu nag euh, mooy du ma yónni benn yónnent ci aw askan ne làkk wi ñu nàmp ñoom lay wax boobu suñu borom te daa daa di waxaat daal ne bokk na ci samay samay kimtaan man waxtilaafu alsinatikum mooy làkk yi ngeen di làkk ni mu wutee lool sama kimtaan la bokk kon suñu borom jëm boobu moo njëkk wane ne mhm. askan yëpp ñoo tolloo ci côté boobu noonu kon ñun lu ñun kuy làkk france rek ñu defe ni kii dafa am xam-xam wala kuy làkk arabe rek ñu defe ni kii dafa dégg dafa dégg diine wala dafa sell loolu ay làkk dong la kon fierté boobu noonu dama bëgg ñun ñu gën ko amaat suñu bopp bokk na ci tamit li nga war nañ ko def ñu ba ñun Sénégal ñu am li wax euh, patriotisme parce que patriotisme tant que réew amu ko mooy nga fier ci sa ci sa ci sa drapeau fier ci sa ci sa fier ci sa jaar-jaar te damay wax ne Sénégal ñun aw xeet lañu xam Euh, macha allah suñu borom euh, dañu war a fier suñu bopp ndax lu tax mooy xeet boo xam ne référence la ci côté ci ci ci référence la ci wàllu gépp Afrique de l'Ouest ñun rek ñooy ñooy réew moo xam ne li ñuy ñàkk ñàkk ñàkk lépp lépp lépp lépp mës ñu am guerre civile mës suñu am coup d'état ndax loolu suñu suñu suñu suñu niveau bi ñu yàlla defal loolu loolu loolu loolu moo ñu ko may ak nit ñu baax yi ñu fi tëdd ñu ñooy xeet woo xam ne ku ko mënti doon boo ñëwee dañ lay. teral tatakal la ba mel ne suñu biir nga bokk nga xam ne foo dem dañ naan la pays de la teranga loolu nag su amee jàpp naa ne tey jii même benn réew su amee problème ci àdduna bi sax Sénégal la ñu war a woon ne ko ñëwal atte ñu ndax exemple bi référence benn jour benn dama la waxtaan ak benn togolais mu ne ma seen président lan lay xaar ci intervenir tego tego pour régler problème bi fa am ma ne lu tax mu ne ma parce que yéen Sénégal xamu leen seen bopp mais ñun pays ñun dañ leen di xoole comme référence ci seen ci seen comportement ci seen jikko ci seen ak tamit ci li nga xamante ne moom ngeen am comme pays stable loolu nag ñun fiat la war doon ci ñun fexe ba vraiment euh, ñu gën a gëmaat suñu bopp fexe tamit aussi tamit suñu ressources naturelles yi nga xamante ne ay jàmbur ñoo ko jël téye ko suñu entreprise yi nga xamante ne ay nationale lañ dañoo dee ñoom ñëpp entreprise yi bu boo xam ne sénégalais ko moom rek tey ji yaa ngi souffrir lan moo tax ñun duñu organiser ay journée yoo xam ne journée jàppale suñu entreprise yi lay tudd nga xamante ne damay jël exemple dañuy xëy journée boo xam ne bépp sénégalais bu région boo mën nekk demal exemple ñu jël ne ñu jël tey supermarché ñu ne tey bépp sénégalais région bu nga nekk demal ba ci EDK nga jënd fa dara boo liggéey ñu ne tey bépp sénégalais foo man foo mën nekk Sénégal demal ba ba ci par exemple war yi nga def fa transfert d'argent dont ne Wari aujourd'hui demu demeetul ni mu demee woon damay mais dama jox exemple rek mhm. wala ñoo tey bépp Sénégalais demal ba fi nga nekk nga jël euh, benn produit boo xamante ne euh, Abdoulaye Dia bu seeni ko moo ko nga jënd ko loolu bu ñu ko doon def di jàppale suñu doom yi dañuy dem ba finalement ñun dootuñ fi nekk naan suñu réew mi tubaab bi dañ ko nangu wala wala kii dañ ko nangu mais dañuy dem ba lépp day dellu si ñun mhm. moo tax nañu gën a fier suñu bopp gën a vraiment bëggante parce que xeet tamit aw xeet tamit bu ñu bëggantewul vraiment day day jafe pour ñu mën développer mhm. waaw voilà fi may jeexale ak yow rek mooy euh, yaa jiite mouvement bi di bëgg

ñun nag loolu mooy suñu yéene fexe ba doon fierté wu département bi parce que bu ñu nee Babacar Seye rek waa département de Mbacké yëg seen xol fierté loolu mooy suñu taxawaay ci département bi loolu nag bokk na ci nga leen di représenté dignement bokk na ci aussi ngay wax loo xamante ni kenn du leen xeeb parce que dama mës dégg koo xamante ne du ma tudd turam représentant wu département bi la ñu invité ko télé mu wax wax yoo xam ne man sama jëm bopp sama jëm bopp fi ma rus loolu nag ñun fas wuñ koo def incha allah dañoo fas yéene doon vraiment un digne représentant de notre localité incha allah ci surtout au niveau de l' assemblée nationale. Mm-hmm. Babacar mbégte lañ amoon dalal la waxtaan wi sax bëggoon nañ mu gën a yaatu gën a waxtaan ci yeneen domaine mais xam naa jëmmi jamono dinañ ko wax euh, di sant bu baax di la gërëm ci disponibilité bi. waaw maa ngi maa ngi lay sant bu baax di wax nag euh, vraiment askanu askanu Mbàkke ak nañ génn bu baax a baax baax dem voteel coalition les serviteurs parce que moom rek mooy coalition bi nga xam ne jàpp na ne fii ci département de Mbacké moom mooy coalition bi nga xam ne moom la ñu war a moom la a voteel te aussi tamit Touba dañ leen bàyyi jël ndax Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade bokkutul ci élection yi ma nga France nekk ci jàmm nañ ko may mu noppalu liggéeyal na Sénégal li mu waroon liggéeyal Sénégal yëpp li mu mënoon lépp def na ko ñi fi nekk di politique nañ gëm seen bopp dem seen bannière laaj baatu askan waaye jël photo Abdoulaye Wade làqatu ci ginnaaw parce que xam nañ ne maire yi ak paa yi dañoo am dañoo bëgg Abdoulaye Wade waaye nag nit loo ko bëgg bëgg bëgg bul ko votel vote boo xamante ne yow lii dañ la ko naxee kese dañoo jël sa photo photo ki ki nga bëgg maanaam taf ko fii ngeen ngeen ne la kaay votel ko te yow boo ko votelee carte bi ngay votel benn waaye boo xamante ne euh, laaluwul dara ak Abdoulaye Wade moo koy jël dem fàllu ci fàtte la xamoo ko xamoo ko xamuloo ko dara loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne dafa jot ñu sensibiliser nit donc nañ ci sensibiliser nit ñu xam ne képp ku votel carte bi nga xamante ne ci la Abdoulaye nekk defe ne Abdoulaye Wade nga votel votelu Abdoulaye Wade ay jàmbur jotewul dara ak Abdoulaye Wade nga votel beneen bi bopp fas moom loolu ñoom xam nañ ko duñ duñ ko votel waaw bopp askan moom ñoom xam nañ bokki bopp fas moom buñ ko sax boole seen programme ak Mbàkke kon li des rek mooy coalition les serviteurs moo fi sës waaw waaw merci voilà ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm muy Babacar Seuy moo jiite liste bi nga xam ne mooy les serviteurs te niveau national Pape Diouroul Fall eh, jiite ko moo jiite tamit mouvement bi nga xam eh, ne moom mooy bëgg Sénégal mbégte gu yaatu lañ amoon eh, dalal di leen sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon seetaan ci CNZ ñu àndoon ak Thier ci cadrage bi Jules moo ne woon ci photo yi ak transport bi di sant ñëpp di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen invité yi.